asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre-vingt-dix-sept point cinq rawatina seen émission sociale euh, toute la ville en parle samedi bu jot dix heures jàpp onze heures euh, ngeen koy am ci Rewmi FM di ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale euh, toute la ville en parle dalal Ahmadou Bamba Thiam nekk expert en cyber criminalité formateur ci école de défense et de sécurité yu bare bari ñu fas fas yéene waxtaane lépp lu soxal euh, données personnelles chantage bi nga xamante ni gis ngeen ni euh, bari na ci internet bi régulation wu réseaux sociaux yi nga xamante ni euh, souvent dañuy dégg nguur gi di ko wax avantage yeeg inconvénients yi nga xamante ni ànd na ak les nouvelle technologie de l'information de la communication ak cybercriminalité ak yeneen i ponk yu soxal rek xarale yu bees yi daañu ko waxtaane ak kile di Bamba Thiam ñu koy nuyu di ko dalal jàmm Thiam waaw jërëjëf euh, Ndeye Comba euh, kontaan naa bu baax a baax si invitation bi. Mhm. Euh, di ñaan li ñu fi wax yëpp te dugg ci xol yi. Mhm. ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité laaj bu njëkk moom mooy lan mooy cybercriminalité. waaw cybercriminalité boo ko seetee mu nga ko tas ci ñaari mots benn mooy cyber. Mhm. mu nga cyber moom mooy tout technologie information communication ak yëpp. Euh, criminalité moom mos fi jógee. Mhm. defe naa yàgg ngeen dégg ñuy agressé ay nit si mbedd bi di këf seen téléphone. di këf mhm. seen i saak surtout yéen jigéen ñi. Mhm. <laughs> ak di dugg si kër yi ak di lépp lu jëm ci sàcc euh, yàq der rey ak yëpp dafa mos am fii. deneen rek moo si yokk mooy loolu si monde physique la ñu nag lañu indi ci cyber bi nag. te li ko yombal mooy technologie information communication nga xam ne ki daan sàcc léegi wala mu dem ci kër ci dévaliser mën na toog fi mu toog am nu mu def sàcc ki nga xam ne ñëw nit saaga ko euh, xas ko yàq ko lu mel ni xeme këram wala ci mbedd bi mm-hmm. mën na ñëw léegi dugal ko ci biir internet bi mu daal di jàll ba pare gën a gën a yaatu ak ki nga xam ne aussi euh, dafay mer euh, bëgg wane meram def tëj ñuy wax terrorisme bu yàgg da nga gis sànni benn bombu fenn ak rey ñu bëri mm-hmm. léegi su ko neexee mën a dem ci dëkk boobu dugg ci système d' information bi yàq loo xam ne bu ko yàqee ñu bëri dinañ dee mm-hmm. donc loolu moo si moo ci soog waaye nag boo ko bëggee tënk rek mooy Euh, di jëfandikoo technologie information communication comme comme jumtukaay comme moyen comme mm. téléphone ordinateur euh, internet wala mu koy jëmee si lenn lu mel ni ay nit wala ci entreprise wala ci état mm. donc comme cible ak comme euh, outil wala wala ñaari ordinateur mu nga ko jëfandikoo ngir yàq mm. nit aussi mun a yàq ordinateur donc loolu mooy cybercriminalité maanaam defkatu ñaawte fii dañu toxu dugg ci xarala yu bees yi ci internet bi ci réseaux sociaux yi effectivement dañu dugg léegi dañuy jël li ñu daan def ci monde réel monde mm. physique si mm. àdduna bi di si teg bëtam di ko di teg loxoom moom lañ jël léegi indi ko ci internet bi ak réseaux sociaux yi te li ko yombal mooy li nga xam ne yàgg nañ ko wax mooy yomb bi nga xam ne internet yomb na ko ndaxte léegi boo seetee internet léegi foo toog foo nekk léegi da nga léegi comme man séeréer la souvent damay nekk si àll bi di dawal <laughs> gis sa mbokk pël yi ñuy ñuy hmm. sàmm di yore whatsapp mu ne mais naka pël ak ana pël ak whatsapp <laughs> maanaam <laughs> euh, léegi internet dafa c'est facile daal nga connecté wu euh, accès bi foo nekk ba pare ba pare yore aussi euh, téléphone portable téléphone yomb léegi ordinateur yi sax bureau yi rek nga koy kenn kii ko sax léegi hmm. bàyyi nañ ko sax donc lépp loo xam jumtukaay la boo xam nit dina ko soxla si technologie rek léegi dafa yomb ne ki mm. nga xam ne léegi moo ko daan jëfandikoo ngir def lu bon tamit day yomb si moom rek waaye nag doy na waar ndaxte euh, comme paaka la rek bis bu nekk moom laay wax euh, paaka moom euh, mën na rey nit mm-hmm. mën na dagg soble comme ni ko nit di wax na togg am na njëriñ mm-hmm. léegi nag bi nga xam ne moom la ko nekk di la problème bi nekk mm-hmm. waaw bis bu nekk nga dégg ñu naan technologie dafa yàq baaxul musiba la nattu la ak yëpp mais man loolu mosuma see ànd xëy bu ñu nee ba ci kam nañ ci mën a avancer. Mhm. Euh, souvent dinañ dégg euh, braquage am na dem nañ toj nañ tel banque tel banque mais léegi euh, li ñuy faral di gën a dégg mooy peut-être am na ñu toog seen benn ruq si ruq boobu ñu daal di sàcc ci ab banque cinquante million wala cent million wala plus ñu koy dégg dafa bari. loolu naka la mën a nekkee. waaw loolu dëgg la ndaxte boo xoolee Sénégal rek yàgg naa ko wax ñetti at weesu. Euh, metti na lool ci secteur financier bi bon loolu du loo xam ne secret la ndaxte mi ngi si euh, journaux yi ak ci euh, internet bi. ni ñu si bëri na ñu seen système. jël fa lu baree bëri bëri bëri moo xam ni ñu koy jëlee moo xam dañuy dugg système bi jël ko wala dañuy dem si clients yi am ñu def ak am ñuy def jaar si seen ordinateur wala dugg si waaye xam naa ne moom problème bu mag a mag a mag la fii Sénégal jëm euh, secteur financier bi nga xam ne dañuy seen système yi di ci jël lu bëree bëri bëri te sécurisation bi hmm. nga xam ñooñu li liggéey hmm. ba noppi ñoom aussi ñu si bëri góorgóorluwuñu ci sécurité Mm-hmm. bu baax a baax ñu ngi si góorgóorlu waaye li la ci war euh, defuñu ko donc da nga xam ne xam ne li def buñ ko defee dañuy mën te dañuy mën dañuy mën jël lu bëree bëri bëri loo xam ne euh, day tasaaroo si àdduna yi parce que ña koy def du ñu nekk ci dëkk bi mm-hmm. fenn la ñu nekk ndax li ñu soxla rek mooy connexion internet ak xam ni nga xam ne foofu la ñuy jaar ngir ngir def ko donc ni nga ko waxee mais souvent yooyu su amee euh, Bamba dañuy wax ne Euh, peut-être euh, ki ko def dafa xam système mu banque boobu ni muy fonctionner maanaam daf ko xam ba pare mën a dem toog si ruqam def ko. loolu dañ koy dëggal wala ce n'est pas évident euh, que si banque bi lay liggéeyee xam na système bi wala ainsi de suite. wax ma am na détails ay bëri yoo xam doo si mën dugg ndax c'est c'est un peu c'est c'est pour des raisons de sécurité mais mais li nga xam soo ko waxee nit ñi dañ koy def. Mhm. donc mais li nga mën a li ñëpp war a xam. Mhm. mooy da koy jàpp rek ki nga xam ne mooy mooy. Euh, ngay dox ci sa sa sa mbedd bi mu këf sa sa saak xam nga kooku dafay dawal scooter xam nga mm-hmm. ay ay na ci mm-hmm. ndaxte man mii du mun ma ko def ndaxte man mm-hmm. mënu ma dawal scooter xam ne day mën wax ne bu saak bi daanu mën na dawal scooter scooter bi du daanu mu sëgg jël saak bi dem ko ko xarañ na si donc noonu na ngay gisee lépp loo xam ne nit ki da koy jël di ko def euh, di ci di ci jël risque di ko def di ci génn si fekk daf see xarañ moo tax moo xam mu liggéeyam moo xam mu am ci expérience wala moo xam mu xam ni ñu ko defee donc ni mu valable feneen fi ñu defee ñaawteef noonu la valable aussi ci secteur financier bi. Mm-hmm. c'est dañuy gis souvent euh, di nga koy gis ci information bi euh, voilà police cybercriminalité dem na par exemple Yoff wala euh, dem na Ouest Foire fekk na benn appartement boo xamante ni ay booy ñoo fa nekkoon yor seeni ordinateur ñoom ñooy à distance ñooy dévaliser banques yi wala ainsi de suite souvent yow loolu ban jàng nga ci am te souvent dañ koy coller ay étrangers. waaw waaw est-ce que forcément ay étranger ñoo koy def wala ay sénégalais wala n'importe qui war na ko mën a def. Euh, bon quant à xëy na ñooy ñooy def euh, dévaliser banque yooyu bon loolu xam naa ne xëy na euh, ñi si mën tontu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mooy seen liggéey. Mhm. waaye man ci li nga xam ne moom laa mën a wax mooy xëy na bu yàgg ba daanañ wax ne xëy na étranger yi xëy na ñoom ñooy def lu mel noonu. Mhm. mais léegi mbir mi bi mu demee ba ba dox ba euh, jumtukaay yi ñuy utiliser moyens yi gën a gën a yomb. gën a yomb léegi dafa yaatu. Mhm. léegi nekkatul rek étranger ñoo ko def man jàpp naa ni euh, euh, ñëpp a ngi si waaw xeet yëpp a ngi ci donc xëy na ñoom ñoo ko njëkk def. Mhm. ñoo ci gën a fees. mais jàpp naa ne xeet yëpp ngi si nag te ni nga waxee division cybercriminalité wax waxu plateforme plateforme euh, cybercriminalité bu gendarmerie. Mhm. Euh, du ay étranger kese lañ fay lañ fay jàpp donc am na fa ay sénégalais am na fa ay euh, étranger donc jàpp naa ne mbir mi yaatu na yaatu boo xam ne léegi def ko ci ñaax mën a jóge fu nekk ndaxte si internet bi lañuy jaar pour pour def ko te internet bi ñëpp ci am accès. voilà tey jii ñu lay laaj tamit lan mooy données personnelles. waaw don données personnelles euh, mooy bépp information boo xam ne mm-hmm. dafay identifier soit directement wala mm-hmm. indirectement euh, benn doomu aadama mm-hmm. euh, par exemple si tur xam nga wax am na fii si tur nit boo ko waxee rek nit ñi di nga xam na yenn sant yoo xam ne boo ko waxee di xam ñooñu fu ñu bokk am na ay numéro yoo xam ne boo ko waxee rek di xam kan moo ko moom am na ay lépp looy luy màndarga daal moo xam directement wala indirectement soo ko waxee rek nit ki xam Euh, ki nga xam ne moom ngay wax mooy loolu ko information moom moo ko moom mhm. waaw donc loolu mooy données données personnelles mhm. waaw données personnelles léegi nag mhm. euh, dafa dafa dafa dafa doy waar léegi ndaxte bu yàgg ba euh, sa tour date de naissance yooyu yooyu yaa yow rek yaa ko doon am yaa koy xam mais léegi information ak bi technologie bi amee ba léegi léegi pratiquement léegi dafa dafa dafa bis bu nekk ma wax da ngay dugg si benn restaurant wala benn boutique fekk nga taf ay carte Euh, man tamit dugg ma ni mais carte d'identité yi ngeen taf fii kan moo ko moom ñu ne non ay nit ñoo ñëw euh, jël si dara ba noppi daal ko fi fàtte mm. man léegi bu ñu ko fàttee du ah, ñu ko amuñu fu ñu ko yóbbu fii lañ koy taf mm. xam ni ku nekk mën na ñëw jël ko copier ko def si lu ko neex def ko neex te loolu ay données personnelles yoo xam ne euh, nit ñi mën nañu ko exploiter pour def ay ay ay ñaaxum ak photo yi tamit say mm. photo sa vidéo sa sa sa sa sa sa voix yooyu yëpp ay ay ay parce que fu ñu ko wanee wala fu ñu ko gisee rek. Mm. wala fu ñu ko dégg rek dañu xam ne yow yow yaa ko moom. léegi comme par exemple ngay dugg ci benn réseau social comme par exemple damay jël Facebook nga xam ne pratiquement ñëpp ñu ngi fa. Euh, souvent dañ lay laaj say données personnelles dem nañ sax bay léegi euh, bu njëkk ba nit ñi dañ fa doon dugal ay surnom wala des trucs comme ça mais léegi sax dañuy imposer nit ñi euh, ñu dugal seen vrai tour seen vrai sant ainsi de léegi lan mooy risque nga nga inscrire comme par exemple Facebook. def fa say données personnelles sa tur sa sant euh, sa date de naissance say photo say vidéo lan mooy risque euh, ki nga xamante ni mu ngi ci réseau social waaw léegi xam nga euh, loo gis dafa am loo xam ne moo ko tax a xam nga mm-hmm. réseau social boobu nga wax moo xam Google moo xam Facebook moo xam Twitter ak bu mun munti nekk pour nga inscrit il faut nga joxe say information il faut nga joxe ko mm-hmm. léegi nag problème moo nekk lan nga war a joxe ak lan nga waroo joxe parce que ñoom euh, ñi si ëpp bokk ñoom minimum lañ la laaj. Mm-hmm. bon tour date de naissance téléphone ak yu demee noonu lañ laaj. mais aussi parfois ñu ñu ñu dem ñu sori. Mm-hmm. laaj la leneen. Mm-hmm. par exemple exemple laa joxe rek ah loolu waxuma loolu moo am joxe sa turu pap ak sa turu loolu euh, bu la neexee laaj ko parce xam dañ leen jox wala ko leen koy jox. mais sa tur ak sa sant ak say téléphone ak yooyu xëy na boo leen ko joxulee duñ la bàyyi nga dugg. mais sa turu pap ak sa turu yaay. ak ak ak say turu doom ak sa turu jëkkër wala sa turu jabar mais loolu euh, bu la ko buñ la ko laajee boo ko tontuwul duñ la tere dugg. Mm. te problème moo nekk aussi nit ñi ñooy joxe information ba la joxe loo xam ne. Euh, euh, ko joxe mm-hmm. léegi ki moom comme koy may rek ki doo ko may dara mu ne la mu koy delloo. mais am na loo xam ne mooy minimum bi. Mm-hmm. donc problème moo nekk information yi nga xam ne dafa nit ñi def loolu mooy loolu mooy problème bi. bon mm-hmm. Sénégal malheureusement. bon loolu suñu culture la bokk ah, ñun dañu yaatu dañoo baax dañoo gentil. Mm-hmm. xam nga da nga dugg fenn sax laajte euh, xool romb sax ne ku dëkk fi ñu ne eh, kii moo fi dëkk papaam ñu la tudd yaa ñu la eh, li nga bëgg xam ci kër googu yëpp te doo ko laaj mm-hmm. moo moo bindoo noonu mm-hmm. loolu aussi dafa am ay répercussions yoo xam dafa ay moo ñëw ci réseaux sociaux yi maanaam Facebook lan lay gagné ci ci données nit yi léegi. Euh, wala lan mooy risque mën nga ko bañ a say données personnelles waaw say say données personnelles soo ko ci defulee. Mhm. duñ la bàyyi nga dugg. donc problème mu nekk lan nga war a joxe ak loo war a joxe da ngay xool li nga xam ne mooy minimum bi minimum bi minimum bi naa ko ñetti yoon. Mhm. nga koy joxe mais buñ la yokkalee leneen loo xam ne bokk si da ko da ko jox par exemple yow sa position géographique nga nekk so du du force. du force. te léegi da nga ñëw rek. te léegi sa position géographique nga validé nga coché. fekk xamoo donc yow yaa ko def sa bopp. su ko defee yow foo dugg ñu xam ko donc yow du matin au foo jaar dañuy xam dañuy dem ba xam sa mhm. lépp. Mhm. xam heure bi ngay yeewu heure bi ngay ndékki heure bi ngay añ fi ngay liggéeyee. Mhm. fa ngay lépp loo xam ne yow bëgg ko sax. dañ xam ñoom li ak sa àdduna si boppam. même soo duggee sax. Euh, ci YouTube bi wala ainsi de suite li nga bëgg sax moom lañ lay indi. en ah, suggestion mais foofu la jógee nit. nit ku lay topp kay. Mhm. nit ki normal yow bu la nit doon topp suba ngoon. Mhm. mais lépp lay xam. Mhm. fi ngay dëkk fi ngay li ngay lekk lépp lay xam. donc noonu ni ñu ko defee ci ci noonu la ñu ko mën defee ci internet mais ñun ñoo leen ko yombalal. donc mooy li ma expliqué pour ñëwaat ci mooy information yi nga xam ne soxlawuñ ko soxlu nga leen nga leen ko jox. léegi la ñuy Euh, ñoom xam nga ñoom jaayuñu. Mm-hmm. mosoo gis ñu ne télé bi Facebook moo moo moo koy jaay. Mm-hmm. wala wala Google wala wala rajo bi moo koy jaay gisoo ko wala oto bi. Mm-hmm. donc ñoom information yi nga xam ne yow moom nga dugal foofu ci loolu la ñuy liggéey xaalis. donc finalement léegi yow produit bi nit ki fay dugg mooy nekk produit bi moom la ñuy jaay en fait. information si naka si naka. Euh, parce que loolu boo ko expliqué duñ comprendre Bamba. naka naka la ñuy ñoom données personnelles. naka ngay nekkee bon exemple a bu gën a simple. Euh, yow par exemple comme comme nga nekk jigéen par exemple euh, bëgg par exemple euh, maquillage. Mm-hmm. exemple laa joxe comme mm-hmm. jigéen jëf bëgg maquillage. Mm-hmm. yow boo duggee si site bi yow maquillage boo mënti gis rek da nga koy amee. wala day am nu mu demee sax nga am benn photo maquillage daal di ko dugal donc mooy système bi léegi dem na ba xam ne yow maquillage bi daf la intéressé. daf la intéressé. léegi day am ay société yoo xam ne dañuy nekk si àdduna bi. Mm-hmm. di jaay maquillage. Mm-hmm. ñoom xamu xamu ñoom xamuñu la yow. Mm-hmm. bu ñu jékki-jékki ni léegi ñu dañu am ay maquillage yu ñu bëgg a commencé jaay bëgg àdduna bi jigéen ñi nga xam ne dañu bëgg maquillage yëpp euh, ñu leen ñu mën leen euh, envoyé euh, photo yeeg ak ak kii ak ak. info kii ak ñu koy mën a gis seen mais mais mais waaw mais fekk ñoom soci réseaux sociaux yooyu nga wax noonu xam nañ ne liste bi am nañ liste jigéen ñi nga xam ni maquillage rek moo leen neex. mais ñoom lañ koy balancé su ko defee ñoom ñu ñu ñu kii ko. donc su ko defee foofu la ñuy amee xaalis comme par exemple Facebook dañu gis ne euh, léegi même pour nga am euh, benn visibilité bi da ngay fay. waaw bon mais loolu c'est normal non loolu parce que parce que tamit euh, dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay publicité mi ngi mel ni rek loolu c'est normal loolu dafa am bokkul ak par exemple yow nga nga ñu xam ne yow danga bëgg maquillage wala da nga bëgg par exemple ay ay dàll am ñeneen ñu ko soxla. après ñu booye leen yéen ñaar ñooñu fay leen loolu mm. loolu loolu mooy mooy nekk yow yaa produit bi mm. mais jëmm euh, par comme li nga li nga li nga li nga wax nii mm-hmm. Euh, comme Bamba bëgg na fës ubbi na page waaw bëgg na page après ñu ñu ñu nga bëgg ñëpp xam ko. Mhm. loolu comme ni ngay ñëwee si rajo bi rek. Mhm. bëgg ji jaay dara bëgg mu siiw da ñëw Rewmi FM euh, euh, fay pour ñu defal la heure bi ak loolu. exactement loolu moom côté business la rek. Mhm. yaa am li nga bëgg nga dugg nga daal di koy jaay. en fait loolu la. beneen bi nga xam ne moom moo moo mooy le fait que yow nga jël sa adduna bi yëpp dugal ko ci biir. ñoom ñu xam ko ñeneen ñu ko soxla ñu jox leen ko. léegi beneen tamit euh, comme par exemple téléphone yi nga xamante ni ñëpp léegi moom la ñu yor euh, soo ko amee euh, tant que configuré woo si compte Google par exemple maanaam téléphone bi du marché donc c'est forcé nga am compte Google dugal ko foofu ainsi de suite est-ce que nekkul une manière di contrôler nit ñi carrément. non ça dépend ça dépend. bu euh, fekkee yow yow yow na bañ a na mën na marché ah. c' est que yow yaa yow yaa yow yaa fay am soxla par exemple bu fekkee da bëgg. Euh, sa non parce que am na kii yoo xam ne mënoo mënul marché sans pour autant nga ak sa benn compte. waaw waaw mais mais mais nit mën na dund sans internet. Mhm. par exemple man am na ay nit yoo xam ne téléphone yi ñu am nii moom la ñu amee. Mhm. mais ñoom duñ dugg internet donc ñoom wuy téléphone lañ ci def ak yónnee SMS. Euh, mhm. jeex na mais boo bëggee dugg internet. di fa yónnee ak di jot. mais su boobaa euh, par force da nga koy def du amoo amoo amoo benn choix donc du sax que yow da ngay ñëw pour dugg joxe say information mais li nga xam ne moom nga soxla pour jot si. faaw nga def nga def waaw mais condition boobu laa wax ñu tegal utilisateur bi est-ce que nekkul une manière gën a mën a contrôler le monde contrôler nit ki bon loolu loolu c'est évident parce que hmm. <laughs> yow loo xam ne fayoo si dara bis bu ne ma wax la gratuité n'existe pas amul lu ñu hmm. may amul hmm. donc loolu aussi dafa am prix yow boo mënee toog fii par exemple mën a dem dugg Google euh, soxla par exemple benn maquillage euh, euh, États-Unis tapé turu maquillage bi après mu génneel la ko wax la ko koy jaay fi ñu koy jaay ak ñaata lay jar loolu kooku dafa am société am personnel am di fay lépp sonn ba dee léegi nga bëgg ñu mu ñëw rek may la ko noonu. Mm-hmm. donc il faut moom fenn foo xam ne foofu lay jaar pour mën a am xaalis te si yow la koy jaaree. te ni mu ko mën a jaaree mooy mu ubbi la benn buntu boo xam ne boo ci duggee day am information yi nga xam ne moom la soxla ci yow. pour mën a liggéey liggéeyam am xaalis. Mhm. léegi comme commission wu données personnelles fi nekk euh, pour yow am na njëriñ amul njëriñ exactement sénégalais yi souvent dañ koy dégg lan nga leen si mën a wax. bon en général boo def naa plateau télé bu ma dem wala rajo bu ma dem dañ may laaj loolu. Mhm. Euh, commission données personnelles ni leen xamee man noonu laa leen xamee. mais liggéeyoo fa mais euh, en tant qu'informaticien foofu laa foofu foofu laa doon jëm mm-hmm. c'est-à-dire que li nga leen xamee laa leen xamee li ma xam si ñoom mooy mm-hmm. ñoom ñooy euh, gérer euh, données personnelles bu bu Sénégal mm-hmm. mais vraiment seen liggéey concrètement sur le terrain man man man gisuma ko te te te vraiment du ma ci mën sori parce que loo xam ne amoo ci gisuma ko gisuma seen liggéey su le terrain man gisuma ko gisoo ko waaw gis gisuma ko mais en tant que yow expert lan nga mën a séentu nga ne ñu ne Sénégal teg na benn kuréel tout tuddee commission des données personnelles yow lan nga si mën a séentu en tant que expert koo xam ni maîtriser nga tout ce qui est informatique mais da ngay xool comme état États-Unis rek wala wala wala wala wala Europe waa lan lañ si mën a euh, séentu seen euh, euh, commission yi nga xam ne moom moo xam fu fu mun di loger si si si état bi mhm. ñi gérer seen données personnelles ñoom dañuy dañuy dañuy dañ leen di gis dafa am ay politique yoo xam ne ñoom dañ koy am exemple bi ma lay jox mooy par exemple boo seet li ñu woowee euh, gafaay dégg ñu naan gafaay mooy mm-hmm. euh, ñoo mm-hmm. gën a mag ci ci mm-hmm. réseaux sociaux yi euh, boo seetee ay Europe am na ay conditions yoo xam ne ñoom dañ leen ko teg xam nga bàyyi ñu leen rek ñu def lu lu lu leen neex dafa ay conditions yoo xam ne dañ koy dañ leen koy teg comme ça bu fekkee Euh, am na dara loo xam ne def nañ ko loo xam ne du yoon. Mm-hmm. ñoom ñu am mën a euh, dal seen kaw jéem si dara. ba pare aussi di leen di xool li nga xam ne moo baax si ñoom ci dëkk Europe bi ñu leen koy imposer ñu koy def. Mm-hmm. waaw donc loolu am na. donc lu mel noonu lañuy séntu par exemple si. dëkk boo xam ne. waxuma Sénégal mais dëkk boo xam ne am na commission genre liggéeyu mel noonu ci li ñuy séntu si ñoom si la si la si si la bokk. voilà euh, Ahmadou Bamba Thiam ñu euh, laaj la tamit ci euh, naka nga gisee ban analyse ngay def ci chantage bi nga xamante ni moo am ci biir internet bi chantage yi nga xamante ni moo am ci biir internet bi chaque jour ak scandale bu bees jëm lépp rek mi ngi daal di jóge ci ci ci internet bi yow déjà ban jàngal nga ci am. bon fi mu nekk nii moom mbir yi moom mi ngi doy na waar parce que boo seetee. léegi euh, lépp loo xam ne nit ki mm-hmm. meree na ko nit euh, su ko neexee mu jël ko def ko ci réseaux sociaux yi ak si internet bi plus gis nañ ne boo jëlee ay cas jigéen ñu bëri bëri bëri seen sëy tas na tas na parce que seeni information yi nga xam ne moom la doon ak seeni jëkkër nit ñi jël nañ ko si téléphone yi wala ñoom ñu juum partagé ko wala nit ñi jël seen téléphone moo xam ni ñu ko mën defee mm-hmm. jël ko daal di koy jël tas ko si réseaux yi ak ci ak ci euh, internet bi gis nañ ne aussi ay nit yoo xam ne dañuy ñëw toog ngay waxtaan ak ñoom secret loo xam ne jàpp nga ne ko sax ñu enregistré la ba nopp ñëw teg ko si internet bi gis nañ sax fii Sénégal euh, temps élection yi gis nga dafa euh, jamono 8 euh, mars bi mooy problème boobu amoon gis nga audio président bu ñu génnee. Mm-hmm. xam nga ak Ousmane Sonko gis nga ko ak ak fii def naa pratiquement kenn mu si fan yii gis nga benn benn député bu ñu jël vidéo am. daal daal di koy génnee mm-hmm. gis nga tamit. ay ay lépp luy chantage ak ak ak ak wuli pande ak ak yàq der ak xaw yi sutura nit rek mm. gars yi ñu ngi koy def te liñ koy jaare mooy si données personnelles moo xam téléphone moo euh, moo xam vidéo moo xam audio mm. moo xam photo yu ñuy jël ndax ni daf koy am ci yow mm. ba noppi juste rek pour révéler adduna bi ay mbir yoo xam ne mën na mën na mën na la yàqal mën na mën na lor donc dafa nekk loo xam ne dafa nekk Sénégal lu lu lu lu doy waar mm-hmm. te loolu lu mbir bu garaaw a garaaw la garaaw comme laay tooñee nit ñi ma ne nous sommes tous en sursis parce que loolu kenn mu ak amul kenn koo xam ne mën nga ne bi ba ngoon bis bu nekk du premier au trente lépp lay wax ci téléphone si audio. Mm. mbir la boo xam ne euh, euh, kenn waru ko xam. Mm. am na au moins benn boo xam ne jàpp nga ne a euh, fi te ñu ngi koy def di ko di ko tasaare muy muy muy génn ay di ko reprendre. ay ay pose problème parce que da gis ñaari nit yu yu séq dara. problème personnel ñu ay site jël ko ñu ko mm-hmm. gis ñaari nit couple am séq dara. Mhm. ñu jël ko génnee ko ci ci kii bi. te am na si ñoo xam dañuy légalement marié la ñu nekk. Mhm. xam nga donc sax ay nekk ay caaxaan ak yooyu donc dafa mujj doy waar ba nga xam ne foog na wees na ko jigéen ñi aussi gis nañ ne aussi moom lañ jël léegi def ko borne fontaine bu bees mi. Mhm. kon ni mu koy ni ma koy waxee. léegi lépp lu defante lépp lu ñu daan def ci kër yi di ko def ci tuur yi di ko def ci koñ bi léegi indi nañ lépp ci réseaux sociaux indi nañ yëpp léegi ci internet bi léegi. te loolu tamit problème bu mag a mag a a a a Euh, parce que euh, souvent am ñoo xam ne sax seen téléphone bu bu bu réeree wala ñu sàcc ko wala mu wadd duñ nelaw parce que li nekk ci biir téléphone bi la souvent euh, comme ni nga koy waxee. Euh, nit yi sax wóolootuñ pour jël sa téléphone woote parce que yaa ngi woote euh, ñu lay enregistré euh, yaa ngi wax ak nit appel video inci de suite mi ngi lay enregistré bu paree mën na la ci chantage am na si ñoo mais dafa nekk phénomène boo xam ne peut-être léegi actuellement ñu ngi koy dund fii au Sénégal ci biir kër yi ci biir bureau inci de suite mais dafa amoon tamit benn groupe de personnes yoo xamante ni ñoom ñoo doon nekk ci réseau sociaux yi di piéger protégé ñoo xam ne leer na leen ñi am nañu xaalis ba am sa euh, vidéo wala des trucs comme ça di la ci chantage di la ci laaj xaalis ñu leen di wax les les brouteurs lan nga ñu mën a wax si brouteurs yooyu. waaw bon loolu euh, pratique foofu la tàmbalee. Mhm. Euh, ay nit la yoo xam ne dañuy nekk fenn rek cible ay nit si réseaux sociaux yi wala ci ci WhatsApp yi jël fexe ba am fu la jaaree bon bu dee jigéen nga. li si ëpp dañuy ñëw xam nga jigéen ñi suba dañu bëgg ñu leen di jaay da mm. nga rafet da nga lii da nga lii nga ne waa merci jërëjëf ñu indi benn conversation dem ba jël appel vidéo après jël enregistré appel vidéo bi mm-hmm. ba noppi léegi jël nag def si ay montage mm-hmm. euh, yàq sa der am na yoo xam ne aussi du montage c'est-à-dire la am mm-hmm. euh, kooku moom la def ñu jël ko nag daal di koy jël di ko ci chantage di ko ci laaj lu dul nekk ñu bëri bëri ñoo xam ne seen àdduna si soo si loolu la yàqoo am na ñu bëri ñoo xam ne seen alal yëpp ci lañ ko def man gis naa si ñoo xam ne. Mhm. seen i kër seen lépp la jaay. ci chantage joxe ba nga xam ne dem nañ bu leen deseetuñ dara ba xam ne léegi euh, ñu ngi waaj a ba pan a dee sax laay wax. si mhm. lañ <laughs> mhm. soog a génnee nekk léegi commencé si jéem a jël ay pexe te ba jamono bi ma lay waxee nii am na ay nit yoo xam ne ñu ngi souffrir ci chantage. parce que mënuñu dem porter plainte parce que dañuy ragal bu ñu demee. porter ñu bind ko mhm. te kële aussi mënuñu si génn ci moom donc am na ay nit yoo xam instant bii nii ñu ngi ñu chantage. ay jigéen ak ak ay góor surtout ay jigéen yoo xam ne ñu leen di chantage saa yu leen soxlee woo leen parce que duñu si mën dara parce que amuñu fu ñu dem te ñu ngi souffrir gis naa ñoo xam ne aussi dem nañ ba seen seen seen daa gaañu nañu te seen gëm naa ne seen gaañu boobu. ci ci feebar bi bi bi indi dee boobu ci ci loolu loolu la jóge mhm. donc foo ko natt chantage bi wees na ko te ñu ngi ko def nag. ba léegi bis mu nekk ma gis ay nit yoo xam ne dama naan naka la ñuy ñëw Bamba jàppale ñu ngi chantage am naa ay vidéo photo obscène yu ma bëggul mu génn piège euh, nañ ma ba pare ñu ñu ngi may laaj cinq millions dix millions quinze millions. loolu moom loolu moom bis mu nekk nga nga gis lay wax ne man du police du ma mhm. ku am problème bu mel noonu da ngay dem police wala gendarmerie nga porter plainte xëy na ñun aussi mën la teg si yoon.

ba yor seeni oto. nekk ay millionnaire am benn vie bu bu euh, kii si chantage kese. bu nekk nga gis loolu ñoo xam ne chantage la ñuy def ñoom chant chant chanté chanté loola après jël xaalis ni am ñu boo xam ne mooy seen liggéey ci la ñuy dund. Hmm. dañuy nekk euh, jigéen xam nga dem di di wër ay ay VIP wala ñu am xaalis. fexe ba nax leen chant am seen vidéo pare di leen chanteloo hmm. de la même manière am na ay góor ñoo xam ne aussi dañ koy def hmm. donc chantage moom fi mu nekk nii Sénégal moom Euh, moo fi xew mais comment se maanaam euh, techniquement euh, comme ça euh, maître chanteur bi day nekk par exemple góor bi euh, ngi wax ak moroomu góoram mais profilu jigéen bu rafet la def ainsi de suite parfois ñuy wax téléphone. teg waa ji day dégg li moom jigéen lay waxal parfois ñu def appel vidéo mu gis jigéen loolu naka la mën a euh, demee parfois mu nekk fii sax Sénégal euh, di la wooyee numéro États-Unis wala Canada comment ça se passe. xam nga ak internet moom ay téléphone ay téléphone internet moom loolu amul solo parce que téléphone nit ku lay woo téléphone internet moom mën nekk fu nekk am hmm. numéro bu ne loolu moom. Euh, nga am numéro bu la neex loolu moom du dara parce que numéro yaa ngi si internet loolu moom du dara. mais beneen bi nga xam ne moom moo moo si moom nga wax te mu te mu euh, am solo mooy euh, ki nga xam ne moom moo lay jël appel vidéo parfois euh, li vidéo bi mu lay woon du moom beneen vidéo la la tegal. loolu loolu nu muy demee ngay def appel vidéo ngay gis jigéen alors ki ngay waxal moom góor la. waaw ah, mais yow mënoo ko xam mais yow kay yaaw toppatoo fexe ba yow bu la def la moom la muy def. na ko hmm. def mais bu la ko def la nga bañ. mais bu la tegalee benn vidéo boo xam ne parce que yow xam na góor wala jigéen. Hmm. parce nit li mu la woon rek ngay gis. moom jigéen la la boo xam ne euh, mi ngi def li nga xam ni euh, li ko neex su paree léegi ne leen moom def naa def naa li nga bëgg léegi yow defal li nga bëgg mm. yow léegi yow nga jël sa bopp daal di koy yow nga def nga def ko moom loolu la soxla woon loolu la soxla woon teg moom photo euh, vidéo la la woon bu mu teg mais yow sa bopp nga ko woon loolu la léegi yow yaay yeew bu la bu la bu la bu ñu la nee defal loo xam ne jàpp nga ne bis bu feeñee sa àdduna yàqu mais mm-hmm. nga bañ ko def defe naa loolu laa si gis. mais métti na. Hmm? foog na ko ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen mission sociale toute la ville en la tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal euh, ki nga xamante ne mooy Ahmadou Bamba Thiam nekk expert en cyber euh, criminalité tey jii état wu Sénégal naka la mën a xeexee cybercriminalité ci boppam. bon euh, am na ay jéego yoo xam ne euh, état bi def na ko benn bi mooy loi bi nga xam ne moom la ñu amoon 2008 euh, cybercriminalité ak données personnelles yi nga xam ne moom la ñu waxtaanee au début. Mm-hmm. am na tamit loi bi actualisé nañ ko parce que yu bëri dafa changé si diggante bi ñu am lu ñu si yokk 2016. Mm-hmm. tamit. police dafa wax nañ ko ak gendarmerie ku ci nekk am na benn division boo xam ne cybercriminalité lay lay lay lay xeex. Mm-hmm. te ñu ngi ñu ngi ñu ngi góorgóorlu jàpp ci sama xalaat boobu jàpp naa ne ñoom ñu ngi ñu ngi góorgóorlu mais problème mooy nag affaire yi dafa dafa dafa dafa dafa gën dafa compliqué. Mm-hmm. parce que bis bu nekk euh, ñoom ñu génne lu lu bees ñiy yàq ak ñi def lu bon génne lu bees. Mm-hmm. ba pare ñuy gën a bari. ba pare tasaaroo ci àdduna bi xam nga loi Sénégal la yem. loi Sénégal la yem. Sénégal waaw donc yow bu fekkee da nga loi boo xam ne ki nga koy teg nekku fi. Mm-hmm. nekkul fi euh, ma nga fële nekkul mi ngi si àll xamoo sax fu mu nekk. Mm-hmm. xamoo sax fu mu nekk. site internet bi mu koy def nekkul Sénégal. Mm-hmm. moom nekkul Sénégal donc loolu dafa dafa compliqué. moo tax bu ma déggee ñu naan euh, dañuy def euh, xam naa moo nekk seen question régulation. dama naan naka lañ ko defee. parce exemple bu doon dañ ne réguler ak ay agresseur scooter ak ñuy dugg si kër yi di sàcc yooyu mën nga parce que ñooñu Sénégal la ñu sàccee. Mhm. sàcc yi nekk Sénégal. Mhm. victime nekk Sénégal. Mhm. régulation loolu mën nga ci dara. mais koo xam ne yow li muy def moom nekku fi ki mu koy euh, li mu ko defee nekku fi yow li nga am mooy victime bi. donc régulation boobu laa xamul exactement. Euh, chaque fois régulation bi pourtant état mi ngi koy wax. tout le temps faaw ñu réguler. yi mhm. saaga yi ci. ci internet bi ainsi de li ma mais moo tax ma ne bëgg naa xam loolu ni koy defee. en tant que expert. loolu nu ñu ko mën a defee man xaw ma ko. xaw ma ko amoo si xam-xam. régulation internet. waaw réseaux man xaw ma si xaw ma ko li man li ma xam daal mooy. Mhm. fexe ba euh, li nga xam ni moom moo nekk fii Sénégal. Mhm. ñu mën ko ñu mën ko jéem a gérer. naa te li nekk Sénégal def naa doy nañu mbubu ak musuur. Hmm, mooy lan. non bëri na mais li ma la wax ni nit ñi chantage nit ñi chanté loo. exactement mais ñooñu euh, Sénégal même réseaux sociaux kenn mënu ko kii. ñu ngi fi Sénégal toog fi xam nga. vidéo yi ñuy génnee ak ak ñi koy kii mais ñu koy génnee ak ñu koy publier mais ñu si bëri ñu ngi fi Sénégal donc am na si yoo xam ne fii dañ fii la ñuy ba noppi xam nga ba ba lijjanti Sénégal si wàllu réseaux sociaux ba noppi xam nga ba léegi soo ko xool nu ñu koy euh, lijjantee à grande échelle. mais léegi saaga yi ci internet bi. Euh, président sax bu posté photo ñu ñu. wax malheureusement ministre ainsi de suite malheureusement amuñu benn respect. c'est incontrôlable amuñu benn respect si ah, amuñu benn institution yi parce que pour man institution euh, présidence dafa institution la cest du du nit ki. Mm. institution la ndox xam ne mooy suñu suñu donc képp koo xam ne day ñëw di ko di ko saagoo di def ay mbir yoo xam ne naka sul noonu loolu lu ñu war a lijjanti la hmm. mais problème mooy nekk naka nga koy lijjantee parce que ñi nga xam ne ñoom mooy moo bon ci internet bi jub dafa man bis nekk ma gis ay nit yoo xam ne hmm. dañuy def ay touché donné ba noppi nga wax la ñu ne xamuñu ko woon te effectivement xamuñu ko woon parce que ñu bëri bëri li gën a simple mooy xamuñu sax nekk Euh, partagé mën nga si hmm. nga si am problème mën nga si am problème gis dara rek ñu ko benn photo benn benn nit euh, ku ñu saaga xas ko lu ne hmm. ñu jox ko mu ne mu yónnee ko ñu ne ne envoyé ko ne ko gis nga kii euh, saaga yi lañ lañ saaga lañ saaga kee hmm. xam nga wala ñu ne ko photo bu bon si nit mu jël ko wala vidéo bon si nit mu jël ko partagé ko xam nga mais kooku xamul ne loolu bu ko partagé mën na am problème donc nit ki loolu rek nit ñi yeete boobu rek rek dara la bis ne moo ko temps yi événement 8 mars yooyu amoon fii. Mm-hmm. am na ay nit ñoo nit ñu rey ñooñu ak yenn audio yu yu yi. Mm-hmm. mais man dama si daan jot. comme ñëpp ñi si si daan jotee mais man bu ma si jotee loo xam ne leer na ma ne que kii mën na yàq mën na yàq doomu aadama mais mm-hmm. yow mi ma woo laa li yow ma yónnee laa laa laay woo nit ki kooku laay woo ne ko yow vidéo bii nga ma yónnee wala audio bii nga ma yónnee est-ce euh, est-ce que bu fekkoon carrément est bu fekkoon sa papa la woon wala sa yaay wala sa jabar wala sa mu ne ah wax nga dëgg de automatiquement xam nga loolu sans kooku vraiment mm-hmm. beneen yoon bu bu jotaatee dara te kooku xuloo woo moom xeexoo ak moom wax ko dara mm-hmm. mais beneen yoon bu jotaatee lu mel noonu balaa ma ko yëg dina ko si dara donc pour man pour man yee nit ñi mm-hmm. il faut ñu leen ñu leen di yee je pense que loolu mooy problème bi est-ce que mën nañoo wax ni tamit sénégalais yi euh, préparé wuñu leen ak les nouvelles technologie na ak naka la ñuy Euh, utiliser li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux yi maanaam dafa ñëw rek dal seen kaw comme ça xamuñ sax exactement euh, mesuré wuñ ampleur bi mesuré wuñ dara waa ñëpp am nañ Facebook naa am Facebook léegi euh, su ma neexee président posté ma saaga ko dara duma ci fekk alors que au par auparavant kenn xalaatu ko woon fan sax ngay am accès bay communiquer ak tel ministre wala DG wala star tel ou tel est-ce que nekkul ni les Sénégalais ne sont pas bien préparés léegi bon defe naa euh, mus nañ si waxtaan man maa ngi woon euh, Silicon Valley Californie. Mm. fi internet bi ak technologie juddoo donc mm. ñi ñi ngay wax ni sama kanam la ñu màggee fekk naa lépp liggéey naa si tamit. Mm. aussi macha allah am na dëkk yu yoo xam ne xam naa leen. bu mag bu am solo. fii amul si benn dëkk boo xam ne préparé wu na ci loolu. ñëpp dañoo toog rek affaire ne këlëb seen seen kaw. mais problème mooy ne euh, la mu fay fekk. par exemple exemple nga ne dëkk boo xam ne dafa bëri agresseur ñoo xam ne dañuy dañuy dàq nit ñi nangu seen saak di daw jékki-jékki ñu indi ñu indi conteneur scooter foofu mais scooter bi ba mu ñëwee dañ ko indi xëy na xëy na pour ni ñi gën a yomal circulation bi gën a gaaw ñi dem di ñëwaat mais ñooñu tàmmoon euh, agressé ak di daw ak seen tànk mais occasion pour ñoom ñu jël est-ce que mën nga ne préparé wuñu leen woon ci scooter parce que dañoo scooter dañoo ñëw am lu ñu fa fekk daf leen a yombalal dafa am lu mu fa fekk donc hmm. technologie dafa ñëw Sénégal am lu mu fi fekk li ngay wax ni yëpp ay jëw ay saaga ay yàq der ay ay ay ay ay wili pande loolu daf dafi mës a am boobu internet amagul donc bi mu ñëwee internet daf ko yombal. moo tax ma ne problème bi du mu technologie. parce problème mu éducation mu nit ñi ñooy problème bi. nit ñi dafa am lu internet fekk si nit ñi ba noppi daal di koy yee wala fësal ko mais pour man jugee fi woon parce que euh, gëm naa ni technologie bi moom Sénégal ay li si ëpp bokk ay consommateur lañu. Mm. léegi di ñuy def mooy naka la ñuy fexe ba jël nit ñi jël leen euh, idée consommateur yóbbu leen ci ci idée idée idée idée euh, euh, acteur hmm. di ciy liggéey di ci génn hmm. parce que yaa ngi nii suñu émission bi fi bi fi hmm. ñëw ben bi ma njëkkee ñëw fii def na peut ay cinq ans yooyu boobu Facebook ak ak ak ak YouTube daawoon nañ ko def live donc mooy nekk yokkute am na donc dem nañ ba gis nañ njëriñ en dehors niñ daan waxtaan yi rajo mm, rajo léegi dem na léegi ba nit ñi di ko gis mm, mën ko def en même mais loolu mooy acteur yi ngeen gis ngeen si loo xam ne bu ngeen ko defee mu yokku leen yokk ñeneen ñi parce que am ñu ngi koy seetaan feneen foo xam ne euh, bu yàgg daaw ñu ko seetaan mm-hmm. parce que rajo kese la woon donc gis ngeen si bunt yoo xam ne exploité nga mu jël mais Sénégal noonu la ñu war def fu nekk fu nekk Sénégal rek war nañ fexe maanaam économiquement waaw waaw bàyyi saaga yi xaste yi foog ma yàq baam ba su noonam laa uh-huh. foog ma yàq telle personne faw ma yàq uh-huh. DG bi saaga wax si moom lu bon léegi man naka laay fexe ba xarala yu bees yi ma mën si avancer même économiquement financièrement ma ah, ah. mën si avancer uh-huh. d'une manière seen aussi il loolu mooy principal challenge Sénégal mm. te loolu état daf ci am responsabilité mm. parce que dëkk yu bëri aussi euh, seen développement dëkk technologie bi la jaar Sénégal laa gis dëkk boo xam ne profité aussi technologie lu dul saaga la doy wax naa ko état Sénégal am na ci responsabilité dëkk aussi da ngay boo gisee technologie bi di développé ay dëkk mhm. war nga fexe yow ba sa dëkk aussi développé technologie que Sénégal technologie développé Sénégal profité ci développement technologie si si naka la état Sénégal waroon na euh, profité comme ni nga ko waxee ci technologie bi ba sax créer si ay emploi ba sax pousser si euh, jeunes yi di ci demal seen bopp ainsi de suite. comment ay condition ngay ay ay conditions ngay ngay ngay créer rek. Mhm. conditions yi ngay créer pour mën a nekk. donc xam ne kii euh, toog naan day saaga. ah dina am jotu jaaw bu muy saaga. Ah, dina am leneen lu muy def. mais mhm. loolu ay conditions mais loolu du loo xam ne mën nga ko waxtaanee si rajo parce que mhm. loolu du lu simple mais lu mën nekk la. parce que yeneen yeneen dëkk ñu ngi donc problème moo nekk fii c'est une responsabilité qui est, qui est partagée entre sénégalais yi ñun ñii en tant que citoyen normal euh, ak citoyen citoyen lambda ak aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo yore ñoo yore léegi léegi léegi waajur yi euh, nga gis xale yi même pas dix ans dañoo maîtriser parce que léegi da ngay am sa doom bu am dix ans sax nga jëndal ko smartphone jox ko nga jëndal ko sax iPhone jox ko mu am internet tout le temps léegi naka la waajur yi mën a contrôler si seen doom yi ci internet bi. <laughs> ki nga xam yaa ko jëndal iPhone. mooy man boo gisee boo gisee boo gisee ma ma mm-hmm. ma ma ma gën a tiit. Mm-hmm. Euh, tiitoon naa sax mais dama gën a tiit parce que man prochaine génération laay xalaat c'est-à-dire prochaine génération laay xalaat naka la bu fekkee mbir yi dañ toog fi mu nekk ni mu jaxasoo nii. Mm-hmm. ba kenn xamatul fii ak fii ak cinq dix ans nu ñuy def. moo tax chaque fois may insister euh, nekk police ak gendarmerie gars dañu war a yokk seen moyen en tout cas côté cybercriminalité gën leen tàggat si côté boobu gën leen tàggat gën leen jox ay moyens gën leen mooy former euh, moyens ak personnel euh, qualifié ak organisation bu mm-hmm. dëgër mm-hmm. parce que lii ma gis nii muy ñëw nii parce que bu mm-hmm. fekkee juguñu si dina dem benn instant boo xam ñoom duñ ci mun dara kenn du si mun te ñoom bu si munulee dara catastrophe lay nekk loolu c'est important pour ñëwaat wax parents yi parce que xanaa xool ñu ngi koy gis naa xale yoo xam ne amaguñ deux ans. Mhm. deux joxee téléphone liñ ci mën a def deux ans deux ans deux ans mun sa wax. Mhm. li ñu mën ci téléphone bi nit ko. Mhm. deux ans waxtu maanaam trois ans quatre ans dix ans ça dañuy jël téléphone comme ñi ji ñi sa mbokk lébu yi juddoo si géej gi. ni ñuy hmm. gis xale bu am deux ans mu mën a mën a fay ñëwaat. exactement mu mu jaaxal la. moom ñoom si ñoom noonu déjà ñoom si léegi téléphones yi la ñuy la ñuy la ñuy joué si téléphone léegi fu ñu bëgg dem dañu fay dem. Hmm. te duñ la laaj. na yor téléphone am xamul sax fuñ nu ñuy defee capture d'écran te doomam bi am 7 moom day def si capture d'écran mu naan ko noo ko defee xale yi si boppam ñoom li ñuy mën xamal lan lañ mënul utal seen bopp connexion pass bu connexion jeexee daal nañ bi jeex na de jëndal connexion mais à part connexion soxla dara seen papa ak seen yaay lépp mën nañ ko te loolu dafa dafa garaaw am na ku ma doon wax ni moom dem na ba code bu mu def doom bi day ñu ubbi ko. d'accord na si yoo xam ne man gis naa ay nit yoo xam ne. Mhm. seeni seeni doom. man benn xale mës mës mës la waxee sa ko téléphone est-ce que doo mhm. moo nekk moo nekk moom sa code la ko waxee doo ko ko changer kañ la ko xam kañ la ko xam. Mhm. donc donc li wax ne donc donc donc parents yi dañ si am responsabilité bu mag a mag a mag a mag. mais malheureusement parents aussi boo ko nekkee il faut donner le bon exemple. Mhm. parce que parents yi ngay wax nii mais li ñu wax fi yëpp tàmbali ba ba ba ba ba léegi. déjà parents yi ñoo koy def ay ay parents koy def. Mhm. saaga wili paan yàq der. Mhm. Euh, euh, génne audio jàmbur weer weer nit lépp lu ñu fi wax tàmbali ba léegi ay parents ñoo koy def yow naka ngay euh, yee yeddee sa doom ci loo xam ne. yow yow tane woo ko si. donc affaire donc ça pose problème. Hmm. parce que loolu daal dans vingt ans yan yan façon mag la ñuy door. Ah, loolu moo grave donc fi mu nekk nii man jàpp naa ni le mal est très profond cest à il faut que nit ñi toogaat xoolaat seen bopp xam ne situation bi nga xam moom la ñu dund nii bés bu continuer dina am ay répercussions indirectes enfin direct ak indirect ci mm-hmm. sax euh, sécurité dëkk bi parce que jàpp naa lii bu yàggee problème de sécurité la nekk national bu fekkee nit ki léegi mën nga jaar ci benn nit pour yàq dëkk mm-hmm. pour man loolu nekkatul sax nit ki mais problème sécurité la donc état daf ci am responsabilité bu mag a mag a mag nit ñi am ci responsabilité bu mag a mag ku nekk am responsabilité moo tax dama kontaan bi mu déggee xam général des Mourides sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér mm. bi mu wax ci euh, màggal gi passé réseaux sociaux parce que moom ñëpp xam nañ ne régulateur social la loolu ñëpp xam nañ ko. Mm. donc su demee ba di si wax egg ba niveau boobu di si wax. mooy nekk problème bu mag a mag am na te ñoom mm. léeg-léeg dañuy gis saa su ne dañuy gis loo xam ne ñun duñ ko mën a gis. Mm. donc lu jar a bàyyi xel la. léegi euh, beneen ponk euh, naka la ñu mën a def ba euh, connexion bi prix bi wàññeeku maanaam connexion Sénégal dafa cher peut bu ñu jëlee comparaison ak France ainsi de suite léegi pour yow lan mooy solution pour prix bi gën a baisser. parce que même bu fekkente ni xarala yu bees yi wala internet bi bëri na ay euh, inconvénients am na avantage yu bari yu si nekk léegi euh, képp kuy liggéey da ngay soxla internet boo nekkee sa kër dañ koy soxla ainsi de suite mais dañu gis ni tarif yi dañu cher euh, pour yow lan solution pour tarif yi wàññeeku. mais da ñu am tamit kii de de qualité aussi. kii bu am solo nga wax. ñun malheureusement inconvénients rek la ñuy wax mais gis nga li si nekk si avantage. avantage xamul mu toll. Mm-hmm. Euh, gis nga léegi jigéen ñi ñu bëri ñu ngi ñu ngi jaay si en ligne. Mhm. Euh, ak yu bëree bëri bëri kenn yoo xam ne kenn mënu kenn mënu wax lépp. Mhm. beneen bi aussi mooy jëmm connexion sax dafa war a daj si euh, réew. Mhm. parce que dëkk yu bëri jënd connexion dafa non non daj daj dafa connexion bi fépp war nga gis ñu développé yëpp yëpp yu mujj yi. seen PIB. ci ci ci ci ci kii bi la jóge ci technologie la jóge donc bu dul dara sax intérêt dëkk bi la technologie daal daal di avancé. Mhm. am kii te bu avancé si fi manifeste mooy si internet bi. Mhm. ñëpp mën a am accès internet fu mu fu mu fu mu nekk de qualité ak bu gaaw pare bu yomb. Mhm. mais bu dee si kenn ndax euh, euh, prix moom dara pour mu yomb. foog mu am compétition. te euh, dama xaaral boo seetee fan yi passé Euh, lan moo tax euh, euh, yónnee xaalis léegi yomb Sénégal a yomb bu fekkoon kenn kese kese moo fi moo fi nekkoon. xaw nañu dee xaw nit ñi xaw xaw nañu dee. ba ba fa keneen keneen ki ñëwee. Mm-hmm. ci nga gis ne léegi wàññi nañ par mm-hmm. noonu moo amee foofu la war a amee fépp saa yu amee dara loo xam ne dañu bëgg mu wàññeeku dañuy fexe ba créer condition yoo xam ñu bari ñoo koy def. Mm-hmm. ba pare ñu ñu ñu ñu gérer mais am na am na ñeneen ñu ñu yaatal waaye seen réseau dafa nekkul de qualité c'est ça le problème. waaw waaw mooy li ma la wax te loolu problème organisation cest dire que euh, parce que aussi dara day am ñu bëgg ko jël ne lii moo tax. mais mm-hmm. mi ngi mel nga ne circulation rek boo defoon ay autopont rek sans autopont te nit ñi yaruwuñu boo defee sans autopont tamit du changer dara parce que parce que rond-point boo gisee ñu la rond-point dafay autopont loolu la. Mm-hmm. parce que dañu jàpp ne rond-point xatal. Mm-hmm. mais bu fekkee dañuy jël euh, ay autopont ba pare aussi réguler wuñ ko. Euh, du du am benn avantage donc problème moo nekk yow da teg dara ba noppi système ngay teg ba noppi. Mm. ba pare nga organiser ko. Mm. xam ne ñaari da ngay am organisation ba pare am am am système. waaw donc loolu mooy problème bi. donc jàpp naa ne bu ñu ko defee Sénégal dina dina. Ahmadou Bamba waxtu bi dab nañu xam naa dama lay bàyyi nga tàggoog auditeurs yi. waaw di waat euh, sama waa kër rek mooy comme Rewmi FM. di mm. nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi déglu ba pare nit ñi bàyyi xel nag internet musiba la boo xam ne euh, mi ngi fii te day yàq àdduna. donc képp koo xam ne da nga ciy def dara na ko xool baax a baax a baax parce que fii ba ilaa yomi din loo ci mun ci def tamit dañ te ñi nga xam ne aussi ñoo nekk di ci liggéey aussi ñu jàppale leen ba noppi Sénégal xam ne seen internet am na njëriñ euh, mën na développer réew mi euh, mën nañu dimbale si lu bëree bëri bëri bëri ñu gën ci bàyyi xel voilà jërëjëf wasalaam merci beaucoup Ahmadou Bamba Thiam ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am nekk expert en cyber euh, criminalité formateur euh, ci ay école de défense et de sécurité ñu doon waxtaanee lépp lu soxal xarale yu bees yi euh, di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi émission bi mën ngeen ko suivraat ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel ñu leen di jaajëfal bu baax a ba samedi prochain prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak euh, beneen invité jaa ngeen jëf.